ñu lay xamal ne Boy Niang xale la léegi sërëm a ngi naan ma yéen a bokk nday yéen a bokk baay jéem a biraa daan moom ku ko dégg xam ni ñu ak yow a bokk ñu lay ñaanal yàlla na la yàlla defal jàmm di la xamal ne xale bi boo gisee Pikine gépp nekk ci ginnaawam fii nga toog la ëmmat seen toogoon léegi fii nga toog léegi la directeur poisson toogoon léegi ay directeurs yu bari mu dalal leen fi kon su fi dalalee maire président sax laay wax maire président di la ñaanal yàlla yàlla na nga doon président réew mi waaye ni nga jàppe booy ñaa ñu doon ay géwalam doon ay frèlam suñu nawle géwal la waaye bu ñu nangoo doon géwalam parce que parce que parce que ni mu mel moom moo tax koro nga akii ko akii bu rafet booy ñaa nag nekk nit koo xam ne ci jomam ak ngorom ak fullaam jom rek la am moo tax mu jël yaayam ak papaam yóbbu Makka ndax nit ëppale na ko fop daan bu ma yóbbee kii ren moom laay yóbbu déwén mais nga boole sa nday ak sa baay yóbbu màkk tabax kër dugal leen ci booy Niang yàlla na la yàlla lafal cat Boy Niang yàlla na la yàlla lafal cat ci darajey Seydina Mohamed monsieur le maire xam naa xam naa ne tey ñëw nga ak mbégte ñëw nga ak mbégte goo xam ne ni dëkk bi tàngee ak réew mi mu toll monsieur le lan moo tax nga ñaak dugg ci biir dëkk bi nii Pikine ñëw seet si Boy Niang jërëjëf kon ñuy nuyu waa Sénégal yëpp di sant yàlla yàlla mi nga xam ne ba mu ne kun newu fay kun kuni yàlla mi nga xam ne lu mu nas du xët te lu mu roof du jàngar ni nga ko waxee léegi rek euh, ñu ñëw ñëw ak plaisir may nuyu sama frère le champion booy ñaa ñu ñëw fi tey ñëw boo xam ne ñëw mbégte la ñu jóge sàkkal ànd ak délégation damay faral di wax ni àdduna li jar a jaayante mooy ngor mooy teraang te ñun amuñu lu dul sàkkal li ñuy def nii di ci yëngu muy politique bëgg sàkkal bëgg defar sàkkal bëgg sagal waa sàkkal bëgg teral waa sàkkal moo tax ñu dugg ci kon ñun amuñu lu sàkkal kon moom bu jëlee ci tempsam jël ci yitteem ñëw fekk ma sàkkal ba pare laata loolu ni mu ma yombalale ñëw bi ndax nga jël koo xam ni champion la star la nga bëgg ko yóbbu sa dëkk mun la am naa kersa di la wax ay affaire xaalis kon kooku gor pire mooy def loolu jamono ba mu waxee loolu nag ci laa dogu woon ni man moom lu mu nekk maa ngi ci kon ñëw bi tey dañu ñëw pour sargal si ay waajuram parce que au-delà de xaritoo bi aussi li mu defal ay woy waajuram man dama nekk bëgg samay waajur rawatina sama yaay ji nga xam ne mooy dund kon symbolique yi dafay bari donc ñëw pour fay ko borom waaye ñëw également pour wax ko ni fi mu teg tànkam foofu la booy ñaa nag dafa am benn particularité bu tax ñu gën ko téye ndax ñun dañu bëgg ku am yar dañu bëgg ku am humilité dañu bëgg kuy dox ndànk di wax ndànk ak lu la yàlla mën a may ñu gis jikko yu rafet yooyu ci moom muy nit ku baax nit ku yaru nit ku teey loolu moo tax ñu dagg suñu yitte ànd ak délégation ña nga ne toog ñoom ñëpp jóge sàkkal bi ma leen waxee ci booy Niang laa jëm ñoom ñëpp dañu sawar donc booy ñaa maa ngi lay nuyu waaw délégation bu rëy ñoo ñëw représenté waa sàkkal bi leen ko waxee leen ci Boy Niang laa ñëw sawar nañu ñu lay indil nuyoo waa Sàkkal aleykum salaam waaw waaw ah, yaay wooyu ñu ngi lay siyaare Dieng laa sant waaw kay Dieng laa sant na ngeen def ñu ngi bu baax a baax ñun laay ñu ngi siyaar bu baax suñu yaay ji di ñaan lépp loo xam ni ñaan na ko ci màkk yàlla suñu borom euh, àggale loolu yàlla suñu borom nangu ko lépp itam nag nekk xéewal ci njaboot gi ci gudd fan ci ay papa ak yaayu Boy Niang waaye nag ci suñu waa ji mu nekk roi des arènes très rapidement ragal péete nag day xañee wërsëg man moom euh, dama am cofeel ci moom am kóllëre ci moom moom ak Boucher daal euh, Sénégal gépp xam nañ sama diggante ak ñoom te nag ñoom ñoo ko liggéey waaw loolu daal laa ci bëggoon sànni ci question bi nga ma laaj. sa relation ndaw waaw xam nga booy tabax réew euh, da nga koy jaarale ci ndaw ñi sama benn xarit mës na ma wax ni ma li ngay def yaa ngi koy def euh, di ci daj ay coono ñu la ci ñu la ciy critique léeg-léeg léeg-léeg ñu sosal la ci léeg-léeg ñu fakkasal la ci mais lu mën a am rek na nga gëm yàlla te xam ni li ngay def pour ndaw ñi la pour jeunesse bi la su ëllëgee bu amee benn ndaw boo xam ni nee na Ousmane Sakkal Euh, moo ci école bu mu tabax laa jànge ba réussir wala ci daara wala ci stade bi mu tabax ci laa nekkee mbër wala ma nekk ci footballeur mun ma su boobaa yow réussir nga sa mission. kon jeunesse bi itam ñii ci la ñu bokk. Euh, muy ëxlu làmb man nag dama nekk amateur lut loolu moo koy préciser également. làmb moom dafa nekk euh, sama sport ma nekk également champion. ma nekk également champion nekk champion d'Afrique de Scrabble nekk vice champion du monde. kon xam naa lan mooy compétition. mais kii daal sama la. sama mbokk la en plus euh, moo tax ma déplacé woo sàkkal ñëw pour taxaw ci wetam. waaw kontaan na Aziz comme ni ko monsieur le maire waxee rek ñuy kontaan ci déplacement bu mu def ñëw ñëw ziar si sama ay waajur te tamit xam nga comme li mu wax rek nit ki moom li nekk si sa jikko moom ngay xoolee nit ba mën a nekk ak moom invité na ma ma dem sàkkal ñëw teewal ko foofu ànd ak sumay nit su sumay am du jàmm sumay xarit ma ñëw fa lay toog naan ataaya kafre waxtaan ak ñun yëpp ba événement bi jot ñu ànd dem man boucher yëpp gis nga image yi xam nga maag boucher fa lañ bëree suñ combat yi xam nga oh, <laughs> nee na maa yëngal kii bi la demee comme daan nga lépp li ko waral moom jukkoom la rek quoi nit ku baax la vraiment yeneen leader yu bëri dañuy daw a loolu seen diggante waaw kontaan rek moom wax na la ko léegi jeunesse mooy avenir dëkk jeunesse mooy lépp mooy doole quoi mooy puissance dëkk te moom nag am na chance boobu jeunesse yëpp ay gaañanam lañu parce que moom tamit même génération rek ak ñun comme naan moo tax kontaan nañu monsieur le maire di jox sa cër ak sa wàccuwaay bi nga teew fii nii suñu papa ak sama yaay jóge màkk nga ñëw teew maanaam delloo nga buum sa boy boy ko ba pare tamit li la lebal yaa ñu koy fay quoi gis naa boucher tamit keroog ñu ngi ko teew lii mooy ànd li mooy kóorle nit bu la taxawoo ñëw say biir loo am wax ko mu ñëw donc moom it bu amee bisam da nga koy teewal te wane nga ko li exemple bu rafet la ma ñëw tey balaa ñu jeexal ma dis kanji kanji production mu ñëw muy kebe di ci kontaan bu baax a baax ñëpp xam nañ su ma ak waa kanji kanji yi loolu moom jarul discours sama diggante ak xam nañ ko donc kontaan nañ bu baax monsieur le maire ñaanal jàmm di wax sama papa ak sama yaay ñu la ñaanal bu baax say mbébét ak yi nekk sa kanam yëpp ak avenir yi ak lépp si moom def ci jàmm bu baax incha allah kontaan nañ bala koddu maa ne mbaa yirim may sa xëri mi ci njob laaj Cheikh Yérim Ndumbaan ay maamam waaye alaaj Samba du kumaana ko jur bu doon góor mooy doon xalifa Cheikh Yérim kooku noonu di ñaan moo ngi dend ak ki nga xam ne nag ah ku ne xam na ko muy ah Kandji Production nga xam ne matériel kër yëpp moo koy jaay lu baax